الله الرحمن الرحيم كف يا عين صاد كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أخواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما يسر لي العذر كما أخواه يسر لي العذر كما أخواه بسر لا إله إلا الله على نبي المصطفى على نبي المصطفى على نبي المصطفى يا الله سل بلا إله إلا الله سلام من بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام Je voudrais d'abord commencer par euh, rendre grâce à Dieu pour nous avoir une fois de plus donné l'occasion en ce mois béni de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, la délégation qui m'accompagne et moi-même, sur instruction du président Cheikh Alassane Sen, président de la fondation sallallahu ala Muhammad mais également président de du de la coalition Natangué apporter ce don en nature euh, composé entre autres de bœufs, de d'oignons, de pommes de terre, de pâtes alimentaires, de la boisson énergétique et des packs d'eau euh, qu'il a bien voulu mettre à la disposition de l'administration pénitentiaire à travers les régisseurs des prison pour femmes de Rufisque, de Liberté 6 du camp pénal et du Forbet. Euh, comme vous le savez, ce programme qui est depuis plusieurs années maintenant inscrit dans l'agenda social euh, de la Fondation Sallallahu ala Muhammad a pour but d'assister ces administrations euh, dans ces heures cruelles que ces pensionnaires qui, qui la peuplent traversent. Et nous sommes d'avis que ce don va constituer une bouffée d'oxygène, en tout cas, à court terme, dans leurs conditions de détention. Il s'y ajoute que le président Cheikh Alassane Sen a au cœur de son programme politique et de sa préoccupation, en tout cas de tous les jours, les problématiques de la condition de la femme. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, il a eu à initier cet ambitieux programme qui va consister à mettre sur une banque des femmes dénommée Allo Sokhna May qu'il compte financer à hauteur de 580 milliards euh, à travers, bien sûr, après une réforme des textes qui gouvernent le WACF, le Fonds mondial pour l'éradication de la pauvreté dans le monde, juste pour assister les femmes. Euh, donc trouvé des femmes très dignes qui comprennent la prison et la détention, naturellement, peuvent faire part et que le destin fait partie de la vie et qu'on n'échappe pas à son destin. Euh, nous prions donc pour qu'elle recouvre la liberté dans les plus brefs délais, à travers des peines purgées, à travers des remises de peine, mais également à travers la grâce présidentielle. Euh, L'autre chose est que nous avons trouvé des régisseurs aussi qui nous ont entretenus de leurs conditions de détention. Nous avons trouvé ces conditions très rudes puisque vous savez que la privation de liberté est déjà très éprouvante pour les hommes que nous sommes, que nous sommes à plus forte raison que pour la femme. C'est la raison pour laquelle ce soir, il a eu à avoir encore cette, pensée amicale à travers ces femmes qui, entre autres, sont nos sœurs, nos mamans, et nous prions pour qu'elles recouvre la liberté dans les plus brefs délais. Je vais terminer euh, pour remercier aussi l'administration pénitentiaire qui nous a reçus pour l'accueil, pour la réception aussi, et qui nous a permis en tout cas d'avoir travaillé dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Euh, bismillahi rahmaani rahim baada aouzu billahi min asheytaani rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi am mbégte ci weer wu sell wii euh, ñëw ci ndigalu sunu président Cheikh Alassane Sène mi nga xamante ni mooy tamit président fondation sallallahu ala muhammad di président aussi euh, coalition Natangué ci ndigalam ànd ci ak kilifa gi El Hadj Malick Sène ànd ci ak euh, jigéenu fondation sunu yaay soxna Kajo Aw ak bien évidemment porte parole cheikh bi ci mbir mi di mon ami et frère Bounama Sow sunu tànk du tànku jàmm la ñu jëmale ko ci euh, li nga xamante ni dafa bokk ci programme euh, président Cheikh Alassane Sène ci secteur social nit ñi dañu war a jàpp te xam ni ça fait presque plus de trente ans moom ci lay dox te président Cheikh Alassane Sène daf ko judduwaale dafa judduwaale tab judduwaale yërmande looloo waral bokk na ci programme am boo xamante ni daf ko ñor soxal ko lool xalaat ñi caabi féete seen ginnaaw ni mu koy defee tabaski di ko def korité di ko def ci yeneen bës yi rawatina jamono ji nga xamante ne mooy jamono sangu-sang yi di sayduna muhammad sallallahu alayhi di soppeem mu xalaat ni dafa war a gàmm ñooñu nga xamante caabi def féete ginnaaw ñu jege sànq euh, prison campenal noonee la ko defee yóbbu fa nag bu rëy yóbbu fa ay lekk ak ay naan luñ koy jëfandikoo pour ñooñu ñoom it ñu mën a barkeelu ci guddi yi nga xamante ne mooy guddi ngën gi mbindeef alayhi salaatu wassalaam ñu jiital ci balaa loolu tamit prison Forbe parce que moom ci programme am euh, euh, euh, social dafa xalaat ndaw yi xalaat jigéen ñi moo tax tey ñu tàbbi fii di prison Rufisque te noonee la koy defee à longueur d'année sans interruption kon moom ci boppam euh, wax dëgg yàlla moom lii mu ñu yebal ñi am nañ ci mbégte ak contentement lool wax dëgg yàlla kon bu loolu wéyee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla président Cheikh Alassane mu yàgg fi lool ci ànd ak wér. yéene bi mu am ci réew mi yan na ko suñu borom jox. ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw prison yi demoon wax naa ko man euh, mooy euh, prison forbe fu ndaw ñi nekk yóbbu nañ fa nag ak dund ak naan euh, ñu dem prison Camp yóbbu fa nag ak dund ak lu ñuy naan ñëw fii ci prison pour femme de Rufisque indi ci loolu jiital ci. ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, El Hadj Malick Sène euh, mu jiite délégation bi donc ñu dox li nga xamante ni cheikh bi moom loolu la wax en toute discrétion mu joxe ko gracieusement ak xol nag bu set wicc ak yéene bu mat sëkk waaw incha allah taala foofu la ñu toll ci mbir mi sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp min al a'daa'i wal ahbaabi يا عين صاد كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أخواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أخواه يسر لي العسر كما يسر لي الوتن كما أخواه بسر لا إله إلا الله على نبي المصطفى على نبي المصطفى على نبي المصطفى يا الله سل بلا إله إلا الله صلاة مؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في مكاننا وسلام في مكانتنا وسلام على عبادنا